اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم mbooloo mi yëpp si turu Serigne Moustapha nee si tarib alxuraan bu mag bi nga xamante ne day tarib alxuraan nga xam ne daara ji sëriñ Mame Bara mi yor sunu mësaana am fukki fan si weeru ut fekk safar gi teru dañuy boole ñi mokkal alxuraan ñoom ñëpp ñu tari ñu sargal leen nga xam ne sëriñ mambaara def na ko ay at te ñu bëree bari mokkal na ci alxuraan muy liggéey bu am solo mu koy defal sëriñ bi ne man nag seede naa Cheikh Sidil Muxtaar Mbàkke sant maam Baara mi ba tàyyi mu jëm ci liggéey bi mu defee ko nam ko ko sante woon wala mu tere ko mu bàyyi loolee ba mu agsi fii mu agsi barki démb la sëriñ Maam mii ñëw ci sëriñ Moustapha ànd ak sëriñ Siidi daara yi nga xam ne ñoo fi nekkoon ñu koy tuddee daara yi moderne nga xam ne Cheikh Sidil Muxtaar Mbàkke moo ko fi defoon mu teg ko ci loxol Maam xidma mii mu ñëw si sëriñ Moustapha doon ko si laaj ndigal mu ne ko ndigalul sëriñ bi moom wéyal ko rek lañuy ñu mën a def mu am si ay bëgg-bëgg yoo xam ne bëgg na ko see taxawe ba fee nga xamante ne nii daara ja nekk saam mu tudde ko Cheikh Sidil Muxtaar incha allah foofu lañuy ñuy defee tari alxuraan bi ren daaru tansil lañ ko daan defee waaye daara ji mu tudde Cheikh Sidil Muxtaar foofa lañuy defe defee tarib alxuraan bi ren nag mu tudde ko kenn si njabootug sëriñ bi Cheikh Ibrahim mu Cheikhul Khadim di waajuru sunu baay sëñ Daam Abdourahman ñu gën koo xam si sëriñ Daam Atta moo tax sëriñ Cheikh du mii ñëw teew fi ndaxte woote bi moom moo ko war a woote kon noo ko yëgal mbokk yëpp di ko yëgal taalibe yépp incha allah fukki fan la si weeru uut. ñu koy defee saam sa daara ja mu tudde Cheikh Sidiyal Muxtaar si ndigalul sëriñ Moustapha mi toog ak sëriñ Abdou Karim mi nga xam ne mooy jëmmi Cheikh Abdou Aziz loolu rek moo doonoon woote bi asubillahi min asheytaan irajim bismillahi rahmaani rahim arkib sëñ Touba asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu mbokki jullit yi mbokki taalibe yi kon maa ngi yëkkati sama kàddu ci turu sëñ Daam Abdourahmane Mbacke mi nga xam ne mooy xalifa Cheikh Ibrahim mu Seexul Xadim tamit ko ci mbooleem jullit yi ak soppe ak taalibe murid yëpp ak waa réew mi xam naa ñu ngi jiital ci nuyoo yi ak ziyaari Cheikh Mouhamadou Moustapha mi nga xam ne tey moo fi toog jataayu Cheikh Mouhamadou ak sëriñ Abdul Karim ak mbooleem njabootu sëñ Baara gi teew yëpp ak gi teewul te di leen ziyaara di leen jotal yóbbante nuyoob sëriñ bi eh, ni ngeen ko xamee nag jotaay bi li ko waral mooy rek li ko sëriñ Cheikh Thioro waxee ca mooy sëñ Maam Baara mi liggéey bu am solo bu mu nekk muy liggéeyu sëriñ Touba ngir ku ne xam na ne sëñ Touba ab liggéeyam da ca jiitu mooy alxuraan ku ne xam na ne jëflante naak moom loo xam ne kenn mësu koo jëflante ak moom yóbbu na ko foo xam ne nit kenn mësu ko faa yóbbu Euh, moom na ko doon na ko léppam alxuraan la wax ne it ay toolam mooy alxuraan loola na képp koo xam ne da ngay liggéeyal sëñ Tuubaa te dale ca te yàlla dimbale la ba nga def ci résultat yu toll nii yi mu ci def day daal di mel ni loola am nga ca cër bu rëy rëy te loolu mooy sëñ Maam Baara mi nga xam ne ñëpp xam nañ ko ci jàngale alxuraan yor daara ju am a am solo Euh, ba yàlla defal ko tawféex yi mu def ci ay résultats yu am solo ndax ren jii wax nañ ne la fa mokk ca daara ja mat na ñeenti téeméeri nit ak juróom-ñeent loolu nag tawféex dëgg la ndax nit samp na lu ni mel ba tàyyi di ko jéem te amoo ci résultats yu toll noonu euh, yamul ci loolu waaye ñuy def at mu ne ñu koy amal am ndaje ndajeem xool gone yi ak ñi nga xam ne mokkal nañ ñu mën a tari ñu mën leen a sargal bu ko daan def at yu bari bu ñu tollee ci weeru safar di waajal màggal gi li ci bees ren jii nag mooy dañoo am yokkute guñ ci bëgg a def ci liggéey boobu ndax dañoo am pas-pasub taxawal daara ji yàkkale ko ba nga xam ne képp ku mokkalate alxuraan dinga nga mën a am foo mën a des di fa jàng xam-xam ba lépp li nga xam ne aajowoo nga ko ci wàllu xam-xam yi am njëriñ yëpp nga mën ko faa jële ba ci sax bu fekkee da nga war a jàng métier. muy li ñuy wax formation professionnelle loolu nag mi ngi ko nësër fële ci Mbàkke Baari tudde ko Serigne Sidi Mokhtar mi nga xam ne ku ko doyloo woon la ci liggéey bi te daan ko ci jàppale bu baax ba yëkkati ay daara yoo xam ne ni état bi da koo tabaxoon teg ko ci ay loxoom. loolu nag lay def at mu ne jëmmi cérémonie bi moom da ko daan tudde kenn ci njabootu sëriñ bi ba ren ji mu tombeek Cheikh Ibrahim mi nga xam ne moom itam ku yàlla cëral la ci alxuraan wax naa ko keroog bi ñëwee ci sëriñ bi ñaar la muy bisub tegu xeer woowu nga xam dañ koy tàmbali liggéey bi tañ tombale ko bis bi nga xam ne ci lay xale yi daan tari muy bis bokkoon ak ginnaaw bis ba mooy liggéey ba ndax nisër bu am solo la ndax man ngeen koo tudd ba ci ay milliards kon nag loolu bépp jullit bu bëgg lu baax te xam lañ fay def na mu toll wala murit bu bëgg lu baax te bëgg liggéeyal sañ Tuubaa ci toolam bi am nga ci aw sas wu rëy rëy ci loolu nag la sañ ndaam ne naka jekk liggéey bi ab liggéeyam ma ndax liggéey bu ngir alxuraan la ñaareel ba ab liggéeyam a ngir euh, jëmmi Cheikh Ibrahim ak Cheikh Mouhamadou Lamine dañ doon wut ñaar kenn lañ ginnaaw bu leen yàlla boole ak bokk sëñ Touba dañ cee boole woon déggoo xaritoo ba seeni mbir it méngoo ci lu bari ci mbiri zahir ak mbiri baatin euh, ñetteel ba itam di gëm ak njabootu sëñ Baara yëpp noonu la mas a mel naka jekk di ay kilifaam di ay soppeem di ay xaritam ba ci sëñ Sidi Maxtaar mi di ko am ci moom yéene te fonkoon ko lool macha allah ba seen diggante lu ne na ko. loolu yëpp nag tax mu ne daal bis bi kon ma soobu na ci te mi ngi ciy sóob képp ku mu am ak képp ku mën a waxal nga dégg ko rek mi ngi lay wax ne bis boobu bisub sëñ Tuubaa la bisub la waaye bisama bisub Cheikh Ibrahim la ndax dañ ko koo jagleel jagleel ko ko itam ci biir weeru safar wi nga xam ne moom Cheikh Ibrahim ci la feeñi jamono te loolu yi di ab cër loolu yëpp tax daal kon mu ne mi ngi koy woote mi ngi ciy soob bu baax di ci sóob mbooleem ku mu am di ci jàpp te di ci jàppalu di woo ñëpp ca bis ba ngir ñu ñëw teewe ko waaye itam liggéey ba nga xam ne moom lañ fay sose lu ci waay man nga jàppe ko ci ngir yàlla jëm sëñ Tuubaa te xam ne lu ci waay def sa bopp nga ko defal loolu daal moo doonoon sama teewaay di sama kàddu ci liggéey bi ñu sant ñëpp di gërëm ñëpp di ñaan yàlla mu yóbbu ñu ci jàmm te may ñu ci ndam ak tawféex ba lañ ci yéene ñu am ci lu kawe njort ci barkeb sëñ Tuubaa mi ñuy liggéeyal asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu mbokki jullit yi ñuy seetaan yëpp ci réew mi ak bitim réew ñu ngi leen di nuyu fii ci kër Cheikh Mouhamadou Lamine Bara Gueye ci Guy Mbind ci kanam jëwriñam ji di Cheikh Mouhamadoul Moustapha Mbacké jataay bi nag eh, li ko wundu mooy daaray alquran wala tari alquran bi nga xam ni sëriñ Maam Bara Mbacké baaxoo na ko def ci daaram ji ñuy tuddee xidmatul xadim ren nag Euh, mu am ñu mokkal ci daara ji ñu war ko defe ji ca Mbàkke Bari ca wetu kër Cheikh Sidi Mokhtar daara ju ko sëriñ Sidi Mokhtar joxoon foofu fa la yëngutu yi di amee ren mi ngi am fukki fan ci weeru août tàbbi na itam ci weeru safar euh, defe naa ne weer yu yëpp lu ca tàbbi sëñ Touba ko moom ci weeru safar bu ñuy liggéeyal sëñ Touba ba agsi ci weeru safar defe naa liggéey bi jox nañ ko borom. ñi mokkal alxuraan ren ab lim la xam naa des na ko gën a leeral te it foofa la ñuy tare barab ba itam dafa am yeneen nisara yuñ fa am daara la waaye dañ ko bëgg a gën a yeesalaat gën koo yaatal ba mu nekk ba ñuy ba mu nekk li ñuy tudde mu jàmma maanaam complexe nga xam ni xeeti njàng ci niveau yi kawe yëpp manees na ko faa def am na itam Euh, barab bu ñuy wax formation professionnelle nga xam ni boo jàngee ba sam jàng àgg des na la tàggat ci métier ba boo fa jógee mën a amal sa bopp njariñ mën a amal say jur njariñ ginnaaw boo mokkalee alxuraan nag ba jàng al ulumu charia yi nga xamante ni sa diine moo ko laaj nga dugg ci enseignement professionnel bi man fa am métier moo xam ne di nga ci mën a suturlu ci sa dund man cee suturaal say wayjur loolu lépp nag ay yéene la yoo xamante ni mi ngi ci kanam yéene yi nag balaa mën a sotti barab ba daa ndax barab bi mooy jiitu la laaj nag itam bari na ki ko jiite itam di Maam Baara la koy liggéey yaakaaru ko xaaru ko fenn furul ci sëñ Touba ndax xam na ni sëñ Touba am na lu ko ëpp tey dëkkam bii bëgg na ko ko fi taxawul alxuraan te lépp moom yéene rek la am waaye lépp ci loxol sëñ Touba la ko teg di ci woo taalibe yëpp nag e, ca bis boobu di ci woo kilifa diine yëpp di ci woo ñi yëngu ci alxuraan te nekk ci dëkk bi yëpp ñu teewee sa ko ndax bisub alxuraan la. bisub euh, yoonu murit la bisub um euh, euh, l'islam bi yëpp la ndax alxuraan dafa yaatu ñëpp ko bokk kon ci turu sëriñ bi ñu ngi ci woo bokk yëpp ñu mbokk Cheikh Mamadou Lamine di ci woo taalibe yëpp ñu teewe ko te bàyyi xel lañ fay def ak la barab ba laaj dañ fay teg xeeru barab boobu dañ koy yeesalaat ndax dafa am beneen niveau buñ ko bëgg a yóbbu boo xam ne bu ñu àggee ca bis ba ku fa teew dana la leer la tàmbalee ci bis ba jëm kanamit lees na leeral lañ fa war a def yëpp wasalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatu. alhamdulilahi rabil alamin allahuma salli wa sallim wa barik ala sayyidil awalin wal axirin almabxuus rahmatan lil alamin sayyidina mawlana muhammad al makin wa ala alihi wa ashaabihi wa xadimihi wa xulafaayihi wa man hada bi hadi ila yawmi din mbokk yi ñu ngi leen nuyu di leen siyaara di jiital kilifa jataay bi ak Cheikh Mouhamadou Moustapha mi buntu Cheikh Mouhamadou Lamine Bara di sunu kilifa dajale nu fi tey jii di ko nuyu nuyu bu ànd ak worma ak teggin yi mu war a àndal di ko ko tegal tegal na ko di loxo waajuram ak Cheikh Ahmadul Mokhtar mi yilif ñaari kër yi muy kër Soxna Aminta mu tegal na ko di loxo bokkam xaritam. ak Cheikh Mouhamadou Mountakha mi xalifatul am di Taïba Mouridiyya euh, liñ ciy sos rek mooy sunu bisu bopp bi nga xam ne moom la sunu doom ji di def ci sëñ Baara Mouhamadou Lamine Mbacke bi te ak koo def lool muy bis boo xam ni euh, kenn du ci jàmbur ndax euh, bisu alxuraanul karim la te ku xam sëriñ bi. wala nga doon ci moom dara rek alxuraan doon ak jàmm ndax sëñ bi ni ko sama bàyyi ba di waxee sëñ Moussa Moussa Abdou Khadir yow na sëñ bi ku koy wut boo dalee ci alxuraan boo doon euh, bu da euh, ngaa ca siibul ba ndax sëñ bi léppam alxuraan la waaye njabootam gépp amaati xaas am ci xaas njabootam gépp Cheikh Mouhamadou Lamine Bara sëñ bi boole ko alxuraan kon bu sëtam ñëwee taxawee daara Alxuraan ci ndigali ay waa waajuram di ci def ay pas-pas ba ñu am ci ton yu rëy rëy ma sëñ Baara moom la li muy woote Alxuraan la bisu Alxuraan bi te yàgg na koo def ñu ngi doon la diis waaye ñett yi tax na bu ko wootee kenn du ci jaambur ku nekk la nga ci man na ko ci def mooy sëñ Touba ak Alxuraan ak Alxuraan ci boppam akub jullit waaye sëñ Baara mii mu doon buntam ci sëriñ bi xaas bi mu am ci alxuraan kon la man lépp ci yitte ci xel ci xalaat ba mu ko jàngee ba man ko ba xereñe ci ci xamle ko ay at ñu ci def daara jii muy woote ca Mbàkke Bari Saani sëñ Siidil Maxtaar moo ko joxoon ndigal li jox pàkk ba jox ko ndigal ci daara ji kon nag kon day mel ne ndigal li bu ko kenn di taxawal lenn tem joxe ko ñun ñim yilif ñëpp la ko jox kon moo koy taxawee lu ne am na koy defee waaye am na loo xam ne ñëpp a ko bokk kon daal ci kàddu Cheikh Moustapha maa ngi yëkkati sama kàddu di ko wool ñi sañawoo sañ ñi sëñ Moustapha yilif ñëpp mooy képp ko aju ci Cheikh Mamadou Lamine Bara bis bi sa bisa na nga ko jàppi na sa bisu bopp te kenn téléwut dara ku ne loo man rek na nga ko ca def ndax daara moom mooy wax ne lenn dafa fa doy te toolub yàlla loo ci ji mu ne fa te baax yor saalihaat baax na lool dem ba na ba fi lu lay jariñ te loo def ca daara ja ci lu ca jëm te xam nañ ne fi jamono toll bu nee daara rek la ci jiitu mooy euh, làmbu poos ndax lépp ci àdduna léegi moo koy doxal daar yu njëkkee dañ leen ko doon la ay tool ñuy tool àllarba ay nangam nang waaye àdduna àgg na foo xam ni daar yi mu xam ne dangay xale yi di leen faj di leen jàngal di leen yor lekk di leen nangam nangam euh, barkab Alxuraan sax moo fa ne waaye bu doon loolu moom danga naan mënu ko waaye yàlla nga ko ci sagal kon nag bu kenn defee na xeeb nañ ca sa dara Euh, man itam maa ngi ci am tawféex baax a baax ci yëkkati yi ma ci yëkkati kàddu rek ci mu génn sama xol te yàlla rek a tax wóor ma loolu rek yàlla dina ma ko ci fay rawante na euh, ku ca waaxu def ca kon daal ñu ngi koy son ñëpp ndax bis ba du dulu tuuti nit boo tuddee ba ne milliard ak nangam rek te boo fa àggee mu wees ko waaye kuy sombal sëñ Tuubaa nag ab lim amul solo ndax sëñ Tuubaa mën na boppam fàggu na lu lépp ñu ñu fàggulee ci kaaraange yi noonu la ñu fàggul ci eh, eh, wërsëg wi noonu la fàggoo eh, jub yi noonu la fàggu wér lépp ak xam-xam bi kon nag ku koy defal sa xel ak sa fit rek waaye lépp lu waay ñott ci moom tamit dëgg mën nga ci am lu koy was njort kon daal ñu ngi ci woo ñëpp di sant sëñ baara mi koy def nag ndax liggéey bi moom ni ma ko waxee rek euh, ñun ñëpp la koy defal te mi ngi ciy def lu mu mën ak lu mu am lépp mi ko ciy def daara moom da nga def lépp a jeexal ba def li ñuy li euh, loo def rek doy kon nag ñi koy sant baax baax te mu def ko ci ndigal ay kilifaam ndax sëñ Tuubaa day wax ne looy def te ànd ak ndigal rek euh, ci yow murit bi loola amul solo waaye lu ànd ak ndigal rek boo ci saxee gis sa tawféexi sëñ bi kon daal yàlla yàlla dimbale ko ci dimbal ñu ci ba ñu fekk nu fi te nañ ci daan taxawee di ko ànd ak moom ñu ànd kook moom ndax man damay wax na sama philosophie mooy képp ku bokk sëriñ bi ku ma bokk yow lépp loo ma woolu baax rek euh, yaa ma dimbale ndax euh, tool bi daa yaatu ku ne ne fa ngay nekk di bay rek waaye nag am na tool yoo xam ne moom ña fa nekke euh, seen tawfeex la dañ leen ko yéene waaye tool bi Sëriñ Tuubaa dëgg dëgg dëgg mooy daara ak jàngale te foofu ci la nekk kon sëñ Bara ñu ngi lay sant la gërëm du ñaan yàlla may la du ko jot sa barke maam barkeb Cheikh Modou Lamine Bara kullu aamin wa antum bi alfi xayr asalaamaaleykum wa rahmatullahi waa bitim réew waa biir réew ñëpp ñu ngi leen ko yëgal asalaamaaleykum aouzu billahi min asheytaan irajim bismillahi arrahmani irahim alhamdulilahi almutafadili bi fiqihi fi ddin ala man atahu wa xosal masud lahu min xayri min aimati salaf wa awfaral bidaa wa jahala sawab la yaadu sawatul ahsan min ummatihi mbokk yi asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu ginnaaw bi nu sant yàlla subhaanahu wa taala di judi ci yonante bi sallallahu taala alayhi wa sallam di sant Cheikhna Cheikh Ahmadou Bamba Xaadimu Rasul di jiital ci nuyoo yi ak siyaar yi Cheikh Muntaxa mi nga xam ni moo fi Xaadimu Rasul sunu boroom kàttanal ko te wéral ko di ci teg jëwriñ Cheikh Mamadou Lamine Baara Cheikh Moustapha mi nga xam ne moo fi toog toogaayu Cheikh Mamadou Lamine toog fi toogaayu Cheikh Sidi Mokhtar di ko ñaanal baax suñu borom kàttanal ko te wéral ko bi barakati xaadim rasulillahi sallallahu taala alayhi bi nag mm, bu ngeen ko gisee ab wooteb lislaam wooteb xaadim rasul wooteb Cheikh Mamadou Lamine ci kër Cheikh Mamadou Lamine ñu bëgg ko ànd ak mbokki jullit yëpp ak mbokki taalibe yëpp di ko nekk ca bopp ba di sëriñ Maam Baara Mbàkke bokk ko mbokki taalibe yi mbokki jullit yi jiital ci ay kilifaam euh, mu mu nekk wooteeb lislaam mu nekk euh, ab université kii boo xam ne daara joo xam ni kenn ku nekk xam na ko moom ci alxuraan waaye nag du ko bëgg a yaatal yaatal gi mu ko bëgg yaatal nag moo waral suñu jataay bi te lépp di ci ndigalu Cheikh Sidi Mokhtar mu bëgg koo defee fee nga xamante ni mooy Mbàkke Baari fee nga xam ni Serigne Saliou moo ko joxoon Cheikh Sidi Muxtaar bi mu ko joxee Cheikh Sidi Muxtaar dani ko man képp ku ma jox ab quartier maa la jox turwa turwa waaye yow dama bëgg sa dëkk bàyyi boo ci bëgg nga tudde ko ko mu duppee ko Mbàkke bari Gee moo waral lool Mbàkke Baari nag bi mu ko koy tuddee daa fekk euh, fu ñu wax Taysiir Jóob sëriñ bi daal kon nañ ci boole taysir muy Mbàkke Baari taysir googu ngir maanaam euh, yokke ko ko kon béréb boobu fala sëriñ Mam Baara bëgg a def daara joo xam ni te daara ja yàggoon na ndax sëriñ mook ko joxoon yàgg na lool moo ko boobu moo yeneen ñetti daara daara moderne léegi rek da ko bëgg yaatal liggéey bu ayib mucc mucc ayib boo xam ni képp ku fa jóge ku nekk rek da ngay daal dem université ci xeeti njàng yépp ba tax na mm, daara jooju mu gën a mu delluwaat Cheikh Sidi Muxtaar njukkal li tudde ko ko bis boobu tamit tari alxuraan bi nga xamante ni da ko daan def ci bis boobu la ko indi te bis boobu yi ci daje yi bari bari bari lool te it ngeen xam ne asaar amul kon bis boobu xam naa ni ñii ñëwaat danañ gën a leeral loolu ñun nag la ci suñu wàll mooy foofu sëriñ bi dañu koo dénk ñu nekk chef de village bi nekkal ko fa ci ak nekkam mu jox ñu ci ndigal ndax te tey lu fa xew lu nekk xam nañ ko kon moo waral suñu jataay ak suñu toogaay ngir wax ci te du ci woo ñëpp nag di ci jiital euh, waa commune bi di Abdoulahat Ka di ci teg chef de village yi bu ñu tuddee sëriñ Mawa Sall ak sëriñ Amsatu Jaxate mi nga xamante ni si moo yor chef de village Touba ak sëriñ Saliou Dieng dana mën a yóbbaale ñëpp ñu ngi ci woo daal mbokki jullit yëpp ak mbokki taalibe yëpp mu war a nekk le 10 août war a teg xeer kon ñu ngi ci woo mbokki jullit yëpp ak mbokki taalibe yëpp wasalaamaaleykum wa rahmatullah aousubillah inna waliya allah wa illa billah wasalaatu wasalaamu ala rasulillah mbokku julli yi ñu ngi leen di nuyu nuyoob lislaam di leen wax ne asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu ñu jiital ci nuyoo bi saaxibul fadila cheikh Mouhamadinil Muntaqa mi nga xam ne moo fi nekkal Serigne Touba waaye di ci teg ak cheikh Mouhamadul Moustapha mi nga xam ne moom mooy jëwriñu cheikh Mouhamadul Amin Baara ñu yëkkati suñu kàddu ci turu mboolem ñi nga xam ne ñoo génnee ci daare Maam Baara Mbàkke te mokkale fa alquranul karim diir bañ ñu sosee daara ja ak léegi seen lim toolu ci ñeenti téeméer ak juróom-ñeent 409 personnes yoo xam ne mokkale nañ fa alquranul karim ci euh, ci ren jii nii mu am nag benn daayira boo xam ne moom moo lënkale ñi nekk ñi jotoon a jaar ca daara ja ci njiital sëriñ Madiang Lo kon ñu ngi yëkkati euh, suñu kàddu ci turu sëñ Madiang mi nga xam ne moom mooy président ñi joto génnee ca daayira ji di leen fàttali bis bi nga xam ne moom la ñuy amal le 10 août euh, di ci woo ñëpp di ci soññ ñëpp nga xam ne sëriñ bi moom yitte la ko def ndax lenn rek la doon ci sëriñ Touba mooy liggéeyal alquranul karim te sëriñ bi dafa waxoon ne bi xidmatil kitaabi wal xadiisi yathbutu laa bi zahabin mawruusi sëriñ Touba nee na lenn rek la ñuy doondee ci man alquran ak xadiis waaye kenn du doondee ci man xaalis ak wurus kon ñu ngi koy soññee bu baax a baax di leen ko yëgal bu baax a baax wasalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu